wa aw li méngaleel tofalal asharatu tofal ko ci isnatay nga ni isnata asharata ida tashaau soo soobee unsa lim ku jigéen wa ashara méngaleel ashara isnay isnay ida tashaa soo soobee zakaran góor laf wa nashr murattab ida unsa tasha ma ngi dellu ci awli asharata isnatay aw zakaran maanaam bu fekkee ida tashaa boo soobee zakaran ma ngi dellu ci awli isnay ashara ah maanaam soo soobee góor daal nil isna ashara rajulan soo soobee jigéen nil isnatay asharata isnata asharata aynan aynu mu annas la yaa uyaa ci isna ak isnatay li xayri rafi ñeel na la dul rafa loola lan la mooy nasaba xafat nga ni raaytu isnay ashara rajulan marartu bi isnay ashara rajulan warfa rafa leen bil alifi jaa isna ashara rajulan jaat isnata asharata mraata wal fatxu wa aj dégg nga de wa wa ulif wal fatxu fata nag ulifa miinees na ko fii jus ay siwaahuma ci ñaari jus uy murakkabi adat budul isna ak isnata boo indee salaasata moo asara yëpp dañ leen di boole binaal ci fata nga ne salaasata asara rajulan ba nga naan tisata asara loolu mooy wal fatxu fata ulifa miin nañu ko fii jus ay siwaahuma ci ñaari xaaji murakkab budul isna ak isnata amma ñoom dañu leen di liraab dañu leen daan liraabe ndax dañu leen a yéegaloon ci tasniya rafa alif nasab ak ludul nasab wal yaali xayri raf ila la wax amma boo demee salaasa ñoom dañuy binaal ñaari baat yi ci fata murakkab tarkib leen su ko defee nag nar naxwi yoon ay xeetu tarkib boobu duñu ko mën a wax tarkibul masji ndax tarkibul masji baat bu mujj ba liraab lay doxe aywa kii nag ñu di ko wax tarkibu xamsata achara fi binaa il jus ayni alal fat ni ki bu fekkee dañu ni layla nahaara wala ñu ni sagara sagara bagaraak yooyu tarkibu xamsata achara lañu leen di tudd wa mayisil ishrina li tisina bi waxidin ka arbaina xiina tamyisalal baatu tisin dégg nga ak yéen ci yéegal yëpp ishrin ngay tàmbalee ba ca tisin bi waxidin tamyisa mufrad lay doon ishruna rajulan jaa ishruna rajulan wala ishruna imraatan baatu ishruna xam nga ni du am góor ak jigéen de ishruna ak arbaon xam nga ni yooyu baat moom kenn du leen góoral ak ci jigéen benn melo la amee daal jaa ishruna rajulan ishruna imraatan ba nga naan tisina rajulan ak tisina imraata bi waxidin ni ki arbaina xiinan ci ay jamono dooni arbaina axyaanan déedéet xiinan mufrad lay doon te dañ koy nasab wa mayyazu murakkaban bi misli ma muyyisa ishrina fa sawiyan xuma dégg wa mayyazu tamyisal nañu murakkabul adad xamsata achara thalathata achara bi misli ma muyisa ishrina ci kam nañu tamyisale woon ishrina te mooy mufrad mu ñuy nasab kon nag fa sawiyan huma na nga leen yemale nga ni jaa ahada ashara rajulan ni ngay waxe arbaina rajulan dëgg wa in udifa adadun murakkabu yabqal bina wa ajusun qad yurabu wa in udifa su fekkee dañoo laafal adadan ab adadun ab lim murakkabun bu ñu tarkibe ni ki xamsata achara soo ko bëggee laafal la ko moom yabqa na des al binaa u binaa ga loolu mooy li ëpp nga ni diw sa fukk ak juróom yaa ngi nga ni ko haada ahada acharaka du dëgg waaye bul wax ahada acharika ci li ëpp laa wax nga ni haada xamsata acharaka xud xamsata acharaka dégg nga loolu mooy lépp yëpp xa day des albina alal fil jus ayn ànd ak yaa ngi ko laafe du dëgg te baat sax xam nga boo ko daan binaal soo ko laafee maanaam maalayen sarif sax dégg nga ak yooyu bu laafee daan soppiku waaye léegi kii moom nafa binaa ga des mu ne li alal ak alal alal ak sar amaa nag bul xayrul ak sar mooy li mu ne wa ajisun baat bu mujj ba te mooy baatu ñaareel ba a qad yu arabu léeg-léeg ñu li raab ko ci yenn tànde nga ni nga ni xuz ahada da nga naan haza haza ahada aywa xamsata asharaka wa maratu bi xamsata asharika loolu mooy li mu ne qad yu qad yufalu nga xam ne bariwut xad ak mu daare o day tegtale néew dégg nga wa suq min ithnayni fa ma fawqu ila asharatin ka failin min faala واختمه بت- في التانيث بالتاء ومتى ذكرت أه؟ ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغيرك أه؟ وصغ الردي آه وصغ التقل من اثنين لتمليتي نار فسا فما فوق لك أب إلى عشرة بتشفك نجت تق كوزن فاعل ni ki wasnu faayilin joo tëgge woon ci faala bil fatxi ka daaribin su ko defee nga naan saalisun xaamisun rabiun bu dee góor nga yem foofu waxtem fu fi taani si bi taayi bu dee jigéen na nga ko mottalee taa nga ne saalisatun xaamisatun rabiatun jaa dikk na almaratul xaamisatu arrajulul xaamisu dégg nga ni ci faayil ci faalam de moom sifa la kon wa mata dakarta waxtu woo ko góorale falkur tuddal was fail ja bi xayri tail ci lu dul taa ndax kon sifa la day ànd yam ak mawsuufam ah wa in turid baad alladi minhu buni tudif ilayhi mithla baadin bayini amma sa fail ji nag su fekkee ne da nga koo laafal wa in turid su fekkee ne da ngaa bëgg ca sa fail da nga ca jublu baad alladi mu doon lenn ci la nga xam ne buniya minhu du dëgg nga xam ni da nga bëgg ni dégg nga lafzu bi sifa bi mooy baadul mudaaf ni ki hada rabiu arbaatin kii mooy ñeenteel ñeent ya nee na nga xam ni da nga bëgg ni mooy baadu arbaatin dafa mel ni baadu arbaatin nga wax kon la cay dagankat mooy laafal ko ko dong waaye du dagg du dagan nga daal di ko ko jëfloo nasabal ko ko ma fool loolu du ca dagan de kon da nga naan moom kon da nga koy laaf comme ni ngay laafee baadu nga ni haza rabiu arbaatin ni ki yow mu ni woon haza diwaa ji baadu arbaatin kenn la ci ñeent kon rabiu arbaatin ngay wax ndax kooku baadu arbaatin nga jublu kon da nga koy laafal ni nga doon laafe baatu baadu wuute naag nag li mu ni wa in turid jaala al aqalli mithla ma fawquka xukmi jaa ka xukmi jaailin lahun tama lahu xukuma su fekkee da nga bëgg jël li néew ni kii moo def la néewoon mu bare ni ki da nga ni haza rabiu salaasatin ah kon ñaari anam dagan na ca su la neexee laafal ko haza rabiu salaasatin wala nga ni rabiun salaasatan lu dëgg aji ñeenteel la aw ñett dafa fekkoon ñett mu ñeenteel ko kon salaasatan mafoon la ci rabiun ni nga naane daribun salaasatan dëgg kon yaari anam dagan na ca waaye su fekkoon ni da nga ni hada salisu salaasatin kooku laaf rek lay bande ndax baadu salaasatin rek mooy maanaam loolu li mooy li mu jëkk wax ca bayt wale ah wa in turid ah baada alladi minhu buni soo bëggee ni sifa bi bi nga ko tëggee fail ji lenn la ci li ñu ko tëggee kon tudif ilayhi da nga ko cay laaf misla baadin comme ni ngay laafe baadin bayinin bi aj bir wa in turid soo bëggee jaalal aqalli misla ma fawqu ni kii moo def lu néew la mu mel na li ci kaw moo def ñett ñañu di ñeent kon nag ñaari anam dajana ca uxkum lahu xukma jaailin baatu jaailin comme boo noon jaailin ni ngay waxee jaailu salaasatin arbaatan mënoon nga ni hada jaailun salaasatan arbaatan kon nag boom jox ko ateb jaailin nga ci fi jawaasil idaafati wa nasbil maf'ul وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بالتركيبين léegi ثاني اثنين ñaari mufrad la woon boo mën nga koo def ci murakkab lu dëgg kon fa ji andil bi tarkibayni dégg nga nga ni hada hada rabiu ashara arbaata ashara ci ay góor hada rabiu achara arbaata achara du dëgg kii kon ñaari tarkib ngay andi ndaxte kii ah du dëgg saanis maanaa saanis nay ni nga ca jublu ay baadu is nay ni nga ca jublu hada kii mooy moo fukkeel ak ñeent fukk ñaak ñeent ay baaduhum du dëgg kon moog baadu ñooyam ni ngay laafi saanis nay ni du dagan nasab noonu ngay wax nga ni hada rabiu achara arbaata achara dëgg nga bu la neexee loolu bu la neexee rek ndey mën nga ko waxee nu dul noonu ni mu ni aw faailan bi xaalatayhi adifi ila murakabin bi ma tanbiya fi bu la neexee tam nga indi rek benn faail nga ni hada rabiu thalathata achara ba tey maanaam ma nga waxood mën nga faail ja rek bi xaalatayhi mudakara mag mu annas lépp nga ni hada rabiu thalathata achara hadihi rabiatu thalatha acharata du dëgg loolu mooy waxinu jigéen nga xam ni kon bu njëkk bi moom andi woo baatu ñaareel ba ñu ko tarkiboon kon it moo yow mu haada boo ne haada rabia rabiu achara thalathata achara dégg nga rabia achara thalathata achara wa saa doy siiw na wa saa al istiqna bi haadi achara wa naxwihi dégg nga wa saa siiw na listiqna u doyloo ci baatu haadi achara du dëgg mën nañoo doyloo haadi achara rek su ko defee al yi ngay indi ñaari tarkib yi nga jël sadru bu njëkk ba ak aju su ñaareel ba nga ni hada thalisu achara jar du jar nga naan thalitha achara thalathata achara waaye bi bii nag moom da nga koy liraab kon du jar itam nga naan thalisu thalathata achara dégg amma boo fakkee tarkib bi liraab ko rek wa qabla ishrin azkura wa baabihi min faa'ila min lafdi al adad bi xaalatayhi qabla waawid yuctabar mu ni wazkur tuddal qabla ishrin la jëkk ishrin ak baabu ishrin ba ci tisin na nga tudd faa'il ba min lafdi al adadi mu bokk ca lafdu adad ba ni ci saalisu waaye nag bi xaalatayhi bu dee góor saalisu wal wal ishruun waaye nag bu dee jigéen nga ni saalisatu wal ishruun bi xaalatayhi tadkiir ak taanis xaala kawnihi qabla waawin yuctabar fekk nag na jëkk waaw wu ñuy sukkandikoo nga ni kon saalisu wal ishruun haadihi saalisatu wal ishruun kon faa'il ngay indi min lafdil adad qabla ishrina wa baabihi waaye nag muctamidan ala waawin nga ni haada saalisu wal ishruuna fi lmudakar wa haadihi saalisatu wal ishruuna fi lmuannas ka ayin wa kaza kinaaye adat la di aajo tamis ni ko adat di aajo kon ndaxte moom boo ne kam ñaata kinaaye la ci adat laajoo ko benn sifa adat nga ko laaj wuute naag soo ko ne kayfa sifa nga koy laaj xaal bu mu nekk soo ne matta jamono ngay laaj waaye kam nag moom adat ngay laaj kon ni nga xamee ni mata kinaaya jamono la kam kon kinaaya adat mayis fi listifhaami kam bi mislima mayista ishirina fa sawiyan huma mayis na nga wutal tamis na nga def tamis ci listifhaam niki maanaam mayis na nga tamisal kam baatu kam fi listifhaami ci ba ngay laaj adat bi mislima mayista ishirina ci kem tamis ja nga tamisale woon ishirin nga xam ne mufrad lay doon mu ñu nasab dégg nga te te te du ko laafit moom bi nga xam ne kinaaya la ci ada ni kii boo ne kam ñaata shaxsan ci jëm sama kawe na moo kawe wa ajisan tajurrahu min mudmara in waliyat kam xarfa jarrin muzhara wa ajis pour ñu woy ko nag ajis fi'lu lamar la waaye danga ko naqalu xaraka ak hamsa ga andi ci pour nga mën ko pour wasnu bi mën a jekk foog nga ne wa ajisan wa ajis daganalal an tajurrahu di jar tamyisu yooyu min min mudmaran di lu ñu nëbb min mu ñu dul tudd waaye tamyisu ka ayi na de waaw noo ngi ñëw wa ajis dagana la an tajurrahu di jar tamis jamin mut maran di lu ñu nëbb in waliyat su fekkee dafa topp kam ci boppam ni ki bikam bu toppee xarfa jarrin xarafu jar muzharan di lu ñu feeñal soo nee bikam nag man nga ni bikam dirhamin bikam dirhamin min ma mu feeñ bikam min dirhamin bu la neexee tam dagan na nga ndegam dañoo jar kam ji amma boo nee kam dirhaman da ngay nasab rek doo ni kam dirhamin de kam dirhamin doo ko wax ndax kam du xarafu jar waaye soo jaree baa bi nag kam man nga feeñal min ma ay tànk bu la neexee nga ni kam min dirhamin ndem in waliyat su toppee kam xarfa jarin amma bu toppul xaraf kay kon du ko laaf kon du ko jar mag xaran muy wuñu feeñal wastamilan ha muxbaran ka muxbiran ka ashara aw miatin ka kam rijalin wa mara kam nag su fekkee xabariya la tek ñu di ko wax takfiriya ni ki bare na nangam juma def wala yooyu kam min kam maalin afadatu yadi wastamilan ha jëfandikool kam muxbiran mbir mu nga di aji xabaare ñu di ko waxe taksiriya ka ashara ni ngay defee ashara mu tamyis ba nekk jam u bu ñu laaf asharatu rijalin aw miatin wala comme mia tamyis ja nekk mufrad mu ñu laaf ni ngay waxe miatu dirhamin nga ni kam maalin loolu nag moo ëpp mufrad kam maalin moo gën a bare kam amwaalin ka boo ko defee ka asharatin tamis ja jam ulay ju ñu laaf ngay waxe asharatu ri asharatu darahim soo ko defee comme miatin tamis ja mufrad mu ñuy laaf loolu nag mooy bare ni ki nga ni kam rijalin bare na ay góor wala kam maratin bare na jigéen maratin luga la ci maratu xasaf nañu xamsa ga gannaaw bu ñu toxalee fataam jox raaga arab dana ko waxe maratu way way rek waralu ko maratu danañu ko comme ni nga xam maratu maratu muxaffafu maratu la luga la ah mu dikk ci ka ay yin ak kaza ñoom it ñaari kinaaya ci takfiriya la dégg nga ka ay yin ci takfiriya lay doon ñoom ñëpp kinaaya adat lañu moo tax mu ne ka ayin ak kada ka kam ni ki kam lañu mel dégg nga wa yantasibu day nasabu nag tamyisu zayni tamyisu yaar yii dégg nga ka ayin ni ki wa ka ayin aliman humma usru yusruhu baada usr kooku ma ngi wax foofu ka ayin aliman bare na aliman ci aji metti joo xam ni umma yusru xumma yusruhu baada usrin dogal yàlla dogal na ak yombam gannaaw bu mu jafee woon ka ayin aliman wa kaza mu ne wayantasibu wala nga ni malaktu kaza wa kaza dirhaman wayantasibu day nasabu tamisu zayn aw aw sil wala nga jokk bihi ca tamis ja min min ñu ne waaw loolu da bu dee ka ayin la moom tamisam dana ànd ak min lu bare wa ka ayin min dabbatin wa ka ayyin min qaryatin kooku bare na alquran loolu rekk ci dig nasabam ñëwul ci alquran nasabu tamyisam kenn waxul ay ka ayyin dabbatan mbaa ka ayyin qaryatan min lañ ko amma kaza nag kooku de moom tamyisam kenn du ko def min de kon li mu ne wa yantasibu tamyisu zayni aw wala nga jokk min bihi ci moom tusib nga jot sawaab yaani bu fekkee ka ayyina kaza moom duñ ca def min alxikaaya xikaaya mooy nettali liraabu lisim ju ñu doon liraab nga nettali ko ci feneen foo xam ne sax xëy na moom kenn du ko woon liraab wala fu ñu doon liraab bu dee fu ñu dul woon liraab ni ki mën wala bu dee fu ñu daan liraab ni ki ayun waaye daal xikaaya bi mooy masque ya nga xam ni moom la la jiitu war a am ci liraab moom ngay jox bu dee ayun moom nga koy jox bu dee man moom nga koy jox yooyu yaari baat nag la ñuy xikaaya ixki bi ayin amma ayin moom danañu ko xikaaya boo taxaweeg boo taxawul dégg nga man nag ba nga koy xikaaya fokk ci taxaw lay doon su fekkee na nakira nga ko xikaaya wala maarifa nga ko xikaaya ñoo ci yem te it maarifa bu ñu koy wax alam dong nga tax maarifa bu dul alam ni ki muarraf bil idaafa wala leneen kenn du ko xikaaya ixki na nga nettali bi ay yi nag baatu ay yi ixki na nga nettali maa li rab ja nga xam ni li mankoorin ñeeloon na lisim ju ñu nakiraal joo xam ni su ila anhu dañ ko doon laaj ni ki ba nga ne jaa a rajulun ñu bëgg la laaj kana kooka di nettali mën na la ni ayun wala muy la ayun yaa fata li ngay xame ne nettali la mooy soo ne raaytu rajulan ba tey dala daga daan ayyan wala ayyan yaa fata ci bi nga taxawee ak bi nga taxaw moo nag fil waqfi ci taxaw aw xiina tasil wala waxtu ngay jokk bu dee ay wa wax wa waqfa naxki maa li mankurin bi man mu ni nag wax ki nettaleel bi man ba tey ak man maa li mankurin li rab jañeeloon lu ñu nakkiraal man man nga ko man nga ni jaa rajulun nga ni manu waaye moom doo ni manun de déedéet manu ndax da ngay taxriig noon gi ni mu ne wa nuuna xarrik wax ki at nettalil maa li rab ya nga xam ne li man koorin nekkoon na ñeel lu ñu nakkiraal man nga ko nettali bi man jaa rajulun nga ni manu raaytu rajulan nga ni mana ba ba muy jeex wa wa xarik maasal nuuna bu ko sukkoon bu ko ba ci sukkoon mutlaqan moo xam lu marfu la topp wala mansub wala majrur maratu bi rajulin nga ni mani wa xarik nuuna maas ko wa ashbi'an te nga xëcc ko ishba moo ji ñuy firee le reggal ci luga ashba'tu zaydan jox naa ko mu lekk ba reg regal naa ko ishba ci xaraka mooy jokk nga ca xarfu liin wu xeetoog moom bu dee dàmm waaw nga jokk ni ki manu wala muy fata nga indi alif mana wala nga indi kasam mani loolu mooy ishba waqul waxal bu fekkee tasniya nga bëgg xikaaya di nettali rafaam jaa zayd rajulaani ah nil manaan ñaar ñaar raaytu rajulayni nga ni manayn baada qawlil qaa'ili ci gannaaw waxu aji wax jula ni ah ban gannaaw baada qawlil qaa'ili lii ñeel na ma ilfaani ñaari àndandoo yu ma miin yu ma dëkkee àndal nga ni manaan dégg nga lii ilfaani kab nay ni xam nga kii dafa bind bib nay ni ah kab nay ni nag moo gën a kii xam naa ñaari ànd yoo xam ne kab nay ni comme ñaari doom lañu nga laaj ko doom yi nga ni manayin mooy waxal manaaneeg manay ni suñu soo dee xikaaya lu ñu rafaa tasni tasni bu ñu rafaa wala ñu dasab ko wala ñu xafat ko nga ni lii ilfaani kab nay ni nga ni manaan ca ilfaani manayin ci il nay ni wa sakkin da ngay sukkoon mujj noon ga nag soo ko defee taadil nga maanu ndax li anna la araba la taqifu ala xaraka arab du taxaw ci xaraka sukkoon rek lay taxaw mutlaqan arab faw sukkoon lay taxaw kenn du ko fekk mu taxaw ci xaraka su ko naree def jokk ca xaraf wu xeetoog moom de looloo tax waslu bu xeetoog moom moo tax wa sakkin taadili wa qul liman qaala atat bintun mana soo dee xikaaya mufrad mu annas liman qaala ñeel ka wax ni atat ñëw na bintun ab doom bu jigéen waxal mana foog nga taxawee sukkoon haawu taanis kenn du ko taxawe ay xarak mana manatun mel ni manatun nga bëggoon nga ni mana man rek nga xikaaya fataaga xikaaya taanis ga ca bintu mana wa nuunu nuun muskanatun lu ñuy sukkoon la qabla tal musanna la jëkk taaw lu ñu tasniya la su fekkoon bintaani la bul ko ni maanaa taani loolu naadir la wa qad sumia waaye lii gën a bare kay nga ni mantaan bintaani nga ni mantaan ñan ñaar wal fatxu nazrun fataaga nazrun qalilun wa daifun mana manataan daal qalil ak dof qilla ak dof la boole nazru mooy ma jamaa bayna alqillati wa dof bi xilaaf bi xilaafi alqillati mutlaqan wa na wa nudur da nga ni hada nadirun jublu woon ne daifun la fil istimal waaye maanaam néew na lu ñu ko dégg daal amma boo ne nasrun nag dafa boole jamaa maa qillatihi dofan dégg nga nasrun wal fatxu nasrun wasil jokkal taa wal alif ndegam jamu muannas salim ngay nekk nettali bi man ci min ci bi man ci man nga jokk ci taak alif mu nekk manaat bi isri qawlil qaayili ci gannaaw wax ko ni za ji waay day kalifa kalifun wala kalifa sopp na bi niswatin ciw jigéen nga di ko laaj di xikaaya jargoogu nga ni ko manaat ay manaatin waaye doo taxaw ci xarak za kalifa ay ahaba bi niswatin nga ni manaat waxul nga waxit boo dee xikaaya jam mudakari saali nga ni manuuna ci rafa wala maniina ci nasaba xafa kas jar muskinan ngay aji sukkoon noonu ya nag noonu gu mujj in qiila suñu ne jaa a ñëw na qawmun aw gaay nga nettali rafa nga ni manuun ñu dikkal li qawmin ñeel aw gaay nga ni maniin ci nasaba xafa waaw su ko defee nag amma xarak nuun ga nag naadir la ci baytu woowu nga xam ni qaala ataw naari yaani jinnun aw jinnu ne dafa taal safaraam ca guddi ñu doon dikk ci moom ataw naari fa qultu manoona antum fa qaalul jinnu qultu imu gadaama ci zaamaati arab nee na dama taal ca guddi ah di reer jinne yi dikk ataw ñëw nañu naari ci sama safara fa qultu mani manoona antum manoon rek la waroon a doon ndax xikaaya ci waslu néew na xikaaya ci waslu fii lañ ko dégg nde du dégg bu dee ayu moom fil waqfi wala xiina tasil amma man nag fil waqfi rek waaye moom ñaari nu door ñëw na ci def na ko ci waslu te fa xaraka na nuun gi fa qultu manuuna antum fa qaalu ñu ne nahnu aljinnu nooy qultu ma ni imoo zalaaman im zalaaman ne ñoo ci zaamaati arab noonu la ñuy nayoo jinne ni ngay waxee nit im sabaaxan ne nga im salaam bu dee mbooloo imoo salaam ay tanaamu fi zalaam wa huwa naadirun walqiyaasu man antum wal alam axkiyannahu min baadi man nee na alam it mën nga koo nettali ci gannaaw man bu ñu la nee jaa zaydun waaye nag